mais si Sidi Ahmed nag nitu yàlla la woon bu nëbb ba dem te kenn na xamu ko mais naka baayam bu tëdd ba di Seex Sidi Abubakar defee woon bu ma kenn xam ba mu jóge fi ne dafa mel ni mbubb boobu la summi solal ko ko ne moo tax niru nag moom ci zahir niru nag moom ci baatin ne fa tabaarakallah yal na yàlla yokk leeram